wa akrimna bi nuuril fahmi waftax alayna bi maxrifatil ilmi waxasin axlaaqana bil xilmi wa saxil lana abwaaba fadlika wansur alayna xazaa'ina raxmatika yaa arxama arraximin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 ñaan borom bi subxanahu wa taala mu boole ñu jéggal di amaan mbégte lool ci dellu siwaat ak yéen ci jotaayu almisbaax rawatina nag ci fajaru àjjuma ci bis bu tedd bi nga xamante ne bis bu am wàccuwaay la ci borom bi subxanahu wa taala bis bu am wàccuwaay la ci diine lislaam bis bu am wàccuwaay la itam ci jullit ñi di ci ndokkeel jullit yépp ñaan borom bi subxanahu wa taala mu may ñu ndimbal. bañ mën a bokk ci ñi nga xam ne danañ màng xéewal yi nga xam ne moo nekk ci bis bi waaye ñaan ko mu musal ñu ci lépp loo xamante ne day yàq ay jëf loolu nag daa bokk ci li ciy dimbali nit ki xam li mu war a def bu ko xamee ba noppi mu am dogu ci def ko waaye bàyyee boppam boroomam subhaanahu wa taala bu boobaa mu dimbali ko ndax nee na ku wéeru ci man rek ma doy la sëkk ndimbal ma doy la sëkk kilifa wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu kon nag wàkkiilu ci moom rek te bàyyee ko suñ bopp jalla jalaaluhu wa azza kamaalu di ci ndokkeel bu baax imaam yi nga xam ne ñooy taxaw ci kanamu minbar yi di jàkkaarloo jullit ñi di leen jox message lislaam muy lu ama am solo bari na jàkk yoo xamante ne seeni message ma ngay def jeexiital ci ña fay jullee ma nga fay def jeexiital donte am na ñoo xam ne ne dañuy toog rek ba imaam wax bis bañ ne bismillah rek ñu jóg kàbbar waaye xutba bi moom defut ci ñoom dara loolu it am na nag ndax xutba boo xam ne léeg ki koy wax wax ji mën naa bañ a leer walla li muy wax ña muy waxal mën nañ ko bañ a xam wala waxin wa mën naa des lu baree bari yooyu dafa dafay am ci pénc mi dafay am ci pénc mi waaye ala kulli xaal ñàkk caa xam dara walla mu ñàkk def ay jeexital ci ki nga xam ne mooy xutba ak kiy julli tegtalewut ne day yàq dara ci àjjuma ji waaye bu ca amoon nag loolaa ko taxoon a jóg moo tax ndokkeel gi ñu ndokkeel ñi nga xam ne ña nga cay taxaw seen kamtalaayal kàttan lu am solo la yal nañu yàlla dimbali bañ dégg suñ diine waaye occasion yi nga xam ne lislaama ko moom diine ko moom ñu man koo jëfandikoo ci jeexital yi nga xam ne dana ko def ci suñu diine def ko ci suñu jaamu yàlla te xutba bi loolu da cee bokkoon bari na yuy xew ci mpénc yoo xam ne léeg-léeg ci biir xutba war na caa feeñ war na caa saf sap ba nga xamante ne gisinu lislaam wu maandu wu tegu ci yoon tey joxoñ nit ñi ci buñ jullee ba noppi loola yóbbee leen ab gëstu ca mbir mooma loola da caa bokk yal na yàlla barkeelal mboolem ñi nga xam ne ñoo koy taxawee te gën leen a kàttanal dimbali ñu ci ñu bokk ci ñi nga xam ne dañuy teel a dem jumaa xëy na weeru koor danañ teel a dem jumaa lool waaye bari na ñoo xam ne moom jumaa ji lañu boolewut ci seen programme dañuy dem ba mu sës rek da war a wut waxtu boo demee ba ne treize heures jot na wala waxtu sàngam jot na nga yëg ne tey la àjjuma nag loolu soow yaram yëg ko sab liggéey yëg ko ñi nga nekkal yëg ko moo xam jamono yi événement la boo xam ne da ne ci traite wala jamono joo xam ne dëkk bi dafa naqari ndax léeg nga ne ci traite dëkk bi dox wala waxtu wi njaay mi ngënd mi heure boobu clients yi bari boo moytuwut nga yéex a dem jumaa lool wala nga far bañ a dem wala nga far bañ a dem nag Eh, wa ida raaw tijaratan aw lahwan wa ilayha wa tarakuuka qaa'ima qul maa inda allahi xayrun min al lahwi wa min al tijaara wallahu xayru raafiqin loolu la borom bi waxoon te booba yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ca kaw xutba ba ca kaw minbar ba di xutba ñu ne commerce ga jóge saam ñëw na te fekk loolu di tereet nag ñu war a dem njëkkante ji marsandiis moom daal fa muy xutbaale ñëpp sole seeni dàll ñu baree bari génn bàyyeekoo jàkka ja nee nañ ba mu des mbooloo mu néew watara kooka xaayima ñu bàyyi ko fa mu taxaw borom bi ne moo ne li ma leen dencal moo gën fuuf am njaay moo gën fuuf famille maanaam bu fekkee am maxi moo am wala làmb moo am wala événement moo am lu mu rëy rëy ba teelaa julli ji ba mu la tee julli ji rek loolu lax lay tudd léegi am fola ndax julli gi day farata loo ko jëndee rek loolu am folay doon ca wet ga bu fekkee commerce mu dox la wala client yu bari wala nekk ci événement moo tax wamina tijaara loolu lépp la la yàlla dencal moo ko gën kon wutal ko waxtu baax na léeg-léeg nga romb jàkka yoo xam ne dëgg la suñu jumaa yi dafa euh, mel ne dafa xaw a xat ndax mbooloo yi ci jullee xajuñ ci biir waaye léeg-léeg nga romb ñoo xam ne moom seen digganteeg jumaa ji boo doon dox ak sa tànk danga dox ba sonn door a gis sooroor bi boo yoroon oto yi da nga ko accéléré ñaari yoon door dégg rajo yi waaye ñoom foofu la ñuy jullee nga xam ne moom bi mu génnee palaasam rek garab gam njëkk jot rek falalal ab jullikaayam toog tegalee tànkam ay waaye ndaw waaw moom daal daa génn dox ñaari jéego rek lalub jullikaayam daal di tegalee tànkam nga xam ne moom <laughs> fi mu fi fi mu nekk sax doo xam fan la waaw jumaa jaa nga fële waaye moom ma ngay seen waa jumaa ja rek nga xam ne taatu garab yeeg ron keppaar yeeg lu soree sore jumaa ji ngay gis nit ña nekk fa te mënoon a def ay jéego bañ àgg ci jumaa ja bu jumaa ja feesee sàppe ya jokkaloo ak jumaa ji génn ci biti bu sàppe yi jokkaloo ba jokkaloo lu jokkaloo ko sori sori bu boobaa baax na jumaa ji lu ko nit ki sori sori te fekk mu ngi taq ci jumaa ji rek baax na waaye li bon rek mooy def ko am nooflaay jàpp ne julli moom xam nga ñun dañoo bëgg beru da ngay sax ku ñëw wara a toog ci nit ñi dem beru fële jàpp njàmburam da ngay jàpp ne julli gi dangaa war a beru moo tax bu ñu jógee ci jàkk yi dañuy beru da ngay gis ku ñëw ci jàkk ji sàppese ca kanam féesagut mu dem ca ginnaaw ber sàppes boppam mu dem ca ginnaaw ber sàppes boppam ndax moom toog dend waa ji taqaloog moom day mel ne loolu lay bañ daal day dem fële toog fuuyu toog ne pat te li gënoon nag gannaaw sàppe si féesagut jumaa ji féesagut boo ñëwee fa mbooloo ma yem nga ñëw foofu boo ñëwee nga nuyoo asalaamaaleykum bu fekkee fekk ko imaam di xutba mu fay la nga def sa ñaari rakk taxiyatul masjid toog waaw boo toogee bu fekkee ku yor kurus nga nga yor sa kurus tàmbalee julli ci yonent bi wala nga def say istixfaar wala ngay kañ borom bi subhaanahu wa taala bu fekkee ku bëgg a jàng alxuraan la nga ubbi sab téere tàmbulee jàng te denc sa téléphone bi te denc sa téléphone bi bañ ñëw ci jumaa ji toog def sa tahiyatul masjid ba noppi yor téléphone bi nekkaat ci biir réseaux sociaux yi waaw nekkaat ci biir whatsapp bi di di di manipuler di xool di liir ay article te ñëw ci biir jumaa ji yow da ngaa ñëw ba toog ñëwoo da ñëw ba toog yàqut sa jumaa nag li may wax nii bu fekkee imaam xutbaagut yàqut jumaa ji waaye teggin yeeg yi taxoon jumaa di ko def si ci yow dafa am yum la tàmbulee xañ dafa am yum la tàmbulee moo tax daal bu dee lu mënta ñàkk la bu dee loo xam ne mën naa ñàkk bañ koo defa gën bañ koo defa gën boo toogee noonu nag te imaam xutbaagut téléphone bi vibre sa poos nga xool ko muy loo xamante ne mënta ñàkk te du gudd te doo wax ca kaw bay déranger nit ñi wala message boo mën a tontu mu jëm ci loo xamante ne lu mënta ñàkk la nga def ko waaye bu jëmee ci jaay ak jënd wala mu jëm ci ab liggéey loolu lañ la tere woon léegi ñëw ba ci biir jumaa ji nag indaale sa bitig ndax mën naa am sa téléphone bi mooy sa bitig bi ndax am na facture yoo war a envoyé am na am na mail yoo war a lire am na euh, euh, bon yoo waroon a euh, tontu yooyu yëpp nga bëgg toog ci biir jumaa ji nag yor sa téléphone fas ko yéenee tontu yow yaa ko ci magasin bi yéen a yem da ngaa julli si indaale sa magasin bi sa biir poos rek waaye daanaka benn la moo tax kii julli si teggin yooyu daa bokk ci yi nga xam ne teggin yu muy sàmmonteel lay doon boobaa daal di toog ubbi sab téere alxuraanul karim moo xam kër kahfi bi nga jàngagut woon moom ngay jàng foofu baax na ndax imaam ñëwagut moo xam jàngoon nga ko ba noppi waaye da ngay da ngay nafar da ngay waqfu eh, nga sa dog ba nga doon jàng bis bu set moom nga jàngagul nga nekk ci ndax ab jullit fi mu ne daa war a am dogub alxuraan mbokk yi ab jullit daa war a am dogub alxuraan ci bis bi. daa war a am dogub alxuraan ci bis bi tàmbulee ci danaa jàng nangami isib ci bis bi wala danaa jàng nangami aaye ci bis bi bu dee foofu la am njàngam yam wala danaa jàng alxuraan ci bis bi waaye ab jullit warta xëy suba ba ngoon jot te ubbiwut fegguy kaamil ab bëtam dal ci waaw ab jullit warta def loolu bokkut ci teggin yi dox suñu digganteeg alxuraan waxaala rasulu yaa ya waxaala rasulu yaa rabbi inna xawmi taxadu hada alqurana mahjura waaw yonent bi nee na borom bi sama sama xeet wi sama nit ñi bari na ci ñoom ñoo xam ne wan nañ ginnaaw alxuraan nga xam ne bokkul ci seen programme duñ ko ubbi duñ ko xool mën ngaa dugg ci kër sax léeg-léeg duñ amub kaamil wala buñ amee kaamil it ko tegoon rek lañ ko teg kaamil bi moom décor la daa bokk ci kër gi rek moo tax amut dog baax na mag ñi dañ ko daan def nga am sa sa dogub alxuraan danaa jàng nangam ci bis bi moo xam boo jullee suba ba noppi nga koy jàng moo xam boo julee takkusaan ba noppi nga koy jàng moo xam boo julee gee ba noppi nga koy jàng waaye alxuraan daal moom ci 24 heures yi minimum sa bët du ci teggee ko donte benn yoon la donte benn yoon la bu boobaa loolu am na njariñ yu baree bari yu muy def moo tax ki toog ci jumaa ji itam di xaar am na jumaa yoo xam ne dañuy séddale kaamil dañuy wàccee kaamil loolu nag su suñu yëfi bopp la moom su suñu yëfi bopp la waaye aayut waaye aayut suñu yëfi bopp la waaye aayut bu ma nee suñu bopp la mooy amut fu alxuraan wala fu sariya di diglee ne bala ñoo julli juma nañ séddale kaamil wàccee ko ba noppi loolu mën naa bañ a saxee noonu waaye nag njàngum alxuraan moom lu baax la comme njàngum alxuraan lu baax la te doon lu rafet moo tax fu ko nit defee ca nam ko defee rek rafet na suñ yëfi bopp la bu boobaa waaye nag lu rafet la loo xam ne lislaam bi mu ñu ko fekkee it ñu wax na ñu bàyyi leen ko waaye lislaam da koy rafetlu lislaam da koy rafetlu bu ko defee ñu séddoo ko séddale ko nit ña jàng bu imaam di bëgg a ñëw mu jeex ñooña léeg-léeg buñ jullee ba noppi jàng xut jàng xatmu bi waaye loolu baax na waaye la gënit mooy nga ñëw rek jàng yow dara ci sa alxuraanul karim moo xam sam nafar la nafar mooy ku mokkaloon dara di ko nafar ndax bañ koo fàtte wala sa waqfu la mooy li nga xam ne moom nga aada woo jàng ci bis bi wala sa wird la mooy koo xam ne daa bëgg a jàng suuratu kahfi ci ajjuma ji wala mu bëgg a jàng suratu yaasin wala mu bëgg a jàng suratu mulki bu ko defee jamono jooju mu jàng ko waaye loolu daa bokk ci ki ko mën a def mooy ki nga xam ne daa teel a ñëw ki nga xam ne daa teel a ñëw ci jumaa ji ki nga xam ne ajjuma du koo jaral dara maanaam bu amoon tey tuur bu muy dem wala mm, wala jàng yu muy dem wala conférence bu muy dem léeg-léeg ku ko gis day xam ne kii am na lu mu xewle tey bi mu xëysee it muy bisu ajjuma ku ko gis te di jullit daa war a xam ne kii am na lu mu xewle tey tey la ajjuma waxtu wi bu jotee mu tëj waaye ñu gis ne daa waajale li muy defi rendez-vous boobu mu am day rendez boo xam ne da koo ñor day rendez boo xam ne da koo ñor boo àggee julli noonu sa ñaari rakka muy tahiyatul masjid nga ubbi sa téere di jàng wala nga yor sa kurus di werd wala nga euh, euh, wala nga toog di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala nga toog di xoole yooyu yëpp sa mbir la bu fekkee jumaa joo xam ne daa am koy waxtaan bala ñoo julli lu bari ci jumaa yi dañ koy am gaa yi di ko tudde bayaankat bi bu boobaa nga ma boo ko mënee déglu nga déglu ko waaw boo ko mënee déglu te fekk defoo ci yooyu benn nga déglu ko bu dee yaa ngi def ci yooyu benn mën naa ànd ndax moom loolu muy waxtaan téewul nga mën a yor sa kurus téewul nga mën a yor sab téere ndax moom temps bi lay bañ mu widd rek temps bi nekk foofu lay bañ eh, yeneen occupé ñu mu bëgg mu bëgg suñu xel ak suñuy xalaat nekk ci borom bi subxanahu wa taala jokkaloog li ñu indi moo tax muy taxaw ci loolu bu boobaa ñu déglu ko. bu buñ koy def nag ba imaam xas ba génn nag ba ñëw toog ci kaw min minbar bi yéeg toog lépp loo doon defati charia eh, nee na la bàyyi ko lépp loo doon defati ba imaam yéeg ci kaw minbar bi neenañ nañ la loolu na ko bàyyi bu dee dangaa yoroon kurus di julli ci yonent bi tegal ci suuf bu fekkee da ngaa yoroon ab téere di jàng alxuraan tëjal su fekkee da ngaa taalaloon say tànk te man koo bank te tàllal gi du woon lor a tax bankal su fekkee nag dangaa loru taalal. waaye bu fekkee banque tàllal gi da tàllaloon rek ndax nu tuddati daa bokk ci worma ji nga banque ko ndax sa ruu yëg ne imaam moo ñëw sa ruu yëg ne ki taxaw nii ci sa kanam du bàyyi du imaam Dame njaay mi nga xamoon wala imaam Moustapha Diop mi nga xamoon wala imaam Seck Ndiour mi nga xamoon waaye ki taxaw nii tey mooy rëpp représentant wu yonent bi ci sa kanam tey jii danga ngaa war a am rendez-vous ak sa borom bu ci kanamee te moom moo war a doon sa porte-parole moo war a jiite itam audience bi. moo war a taxaw wax ak moom nga siggi di ko xool bu imaam di xutba la ca gën mooy nga jàkkaarloo ak moom di ko xool tey déglu la muy wax moo tax imaam di wax lu nit ñi mën a dégg nag baax na ci ndax yii nag bu amee teggin yii li ciy dimbali nit ki mooy imaam di wax ak moom ci lim dégg di wax ak moom ca làkk woom dégg rek làkk wa waa dëkk ba ñu ëpp ca ñu julli si dégg imaam moom xutba bi na am sant yàlla na am julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na am digle lu baax na am tere bon yii bu ko defee ci arab baax na waaye message bépp boo xamante ne bu jëm ca xeet wala xeet wa toog ci kanamam ñoo ko moom xeet wa ci kanamam ñoo ko moom jox leen ko ca làkk wañ dégg daa bokk ci teggin yi te daa bokk ci liy amal njariñ nit ñi bul découragé nag bul toog mukk ba mu yàgg nga ne xutba bi daa gudd ndax léeg-léeg xutba bi daa gudd li koy waral mooy kuy xutba loo xamut wala muy xutba loo xam ne du tem d'actualité di xutba lu xewi wala du xutba loo xamut wala di wax lu mu waajalut day tax mu gaaw a toqi ñi muy waxal imaam joo xam ne li muy wax yow mi koy wax xamoo ko da ngay yàkkamti mu jeex imaam joo xam ne li muy wax moom maîtriser wu ko yow mi koy déglu xam nga ne ay toj-toj lay wax ndax léeg mu am nañ ma baal nag yéen imaam yi léeg imaam di wax ci actualité boo xam ne ñi taxaw ñi toog ci kanamam di ko déglu ñoo ko ñoo ko ci raw fuuf c'est-à-dire euh, tegtaliwu ne leleen a war a raw ci lépp ci li muy wax waaye nag war naa doon lu mu xam waaye léeg-léeg mu mu jël bu dee ci wàllu politique bi da nga dem ci jumaa yoo xam ne imaam dana xutba wax ci actualité bu laal politique ñu sëlmal ñu bari ci jàkk ji di xul ndax dañuy xam ne imaam tey ak param la waxe waaw ak maanaam péeteem ci la teg xutbaam bi waaye tegu ko ci nosewu goo xam ne daa jëm ci wàllu xam-xam waaye da koo teg ci ak péeteem bu boobaa loolu du bokk ci li nga xamante ni dafa gën du bokk ci li nga xam ne dafa gën ala kulli haal yooyu daa bokk ci teggin yi nga xam ne dañ koy waajale ki nga xam ne day julli ji juma loolu fàttali la goo xam ne bëggoon naa koo jiital ci waxtaan wi bu imaam di xutba nga di ko déglu bu xutbaa ba mu yàgg mu toog ci xutba bu njëkk bi day toog toogaay boobu am na ñu fi wax ne nit ki def fii ñaan ñenn ñi ne daf fiy jàng alfaatiha ñenn ñi ne day ñaan soxlaam ndax ci barabi nangu ñaan yi la bokk ala kulli haal barabu ñaan la daal am ñoo xam ne duñ def dara dañuy toog rek xool imaam imaam toog ba mu yàgg mu jóg yooyu yëpp am na ay lay am nay delluwaay ay wuute la boo ci tànn am na boroom xam-xam yu ko wax bu imaam toogaatee ba jóg xutba ñaareelu xutbaam boo demee ba yëg ne mi ngi ñaan te nga xam ko nga wax amiin amin jooju nekkul ay wax ci biir julli gi bu ko defee ànd ak moom julli buñ sëlmalee nag bu la neexee dellu ci sab liggéey lislaam waxu la ne ñu sëlmal nga wéeru ca pied ba jëmee tàkkusaan wala nga yor sa kurus fas fa fas fa yéenee yendu wala nga toog fa toogaay bu yàgg ba sa barabu liggéeyukaay ba nga doon liggéey nga fay am ay daan déedéet bi ñu sëlmalee dellu nag ca liggéey ba ca saasa loolu moo neex lislaam waaw fa ida xudiyati salaatu fantasiru fil ardi loolu la wax bu ñu sëlmalee nag dellu leen dellu leen bu ñu sëlmalee tasaaroo leen ci suuf si wabtaqu min fadlillah ngeen dem wuti wërsëg ngeen dem liggéeyi waaw ida nuudiya lis salaati min yawmil jumaa fasaw ila zikrillah bu ñu noddee daw leen julli si gaawantu leen waaye bu ñu sëlmalee yàlla nee na dellu leen ci bureau ya dellu leen ca magasin ya dellu leen ca liggéeyukaay ya loolu mooy li ma gënal fuuf mbokk yi weeru koor buñ ko waxee weer la woo xam ne weeru ñaan la ajuma jee ñu génn nag samedi ak dimanche maa ngi doon waxtaanee weeru sarax la ak solo si nga xam ne moo ci am yal na yàlla barkeel ñi nga xam ne joxe nañ ci seeni sarax yépp yal na yàlla def ko ci seen téere yi jëf ñi nga xamante ne ñi ngi ciy góor góorlu moo xam ñiy jox ndogu ku woor ba ngoon la moo xam ñiy dimbali nit ci xëdd la moo xam ñiy dimbali nit ci dépense la moo xam ñi nga xam ne dañ koy togg di yekkale la ñëpp yal na yàlla fay leen yal na yàlla fay leen lu ci waaye def ci weer wi yal na ko borom bi subhaanahu wa taala fay fi dunya yal na ko fay fil aaxira waaye weeru koor weeru ñaan la weeru koor weeru ñaan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëggoon na ñuy ñaan lool alquranul karim it digal ñu ko kon ñaan mbir mu rëy rëy la ci lislaam njariñ yu matale la am place bu yëkkatiku la am ci diine ji place bu yëkkatiku la am ci diine ji moom ñaan nga xam ne lim làmboo ci wéetal yàlla lim làmboo ci wéetal ko ci jaamu ko moo tax mu nekk bopp mbir yi moom ñaan nekk cosaanit ci diine ji weeru koor nag nekk weer woo xam ne occasion la occasion la ndax période bu barkeel bi nga xam ne moom la weeru koor am di dimbali nit ki jaam bi ci mu jege boroomam subhaanahu wa ci mboolem xeet yi muy def te muy ay xurubaat yoo xamante ne day tax nit ki jege boromam subhaanahu wa taala loolu da koy dimbali ci ñaan nekk li nga xam ne mooy palaasam ñaan lekk li nga xamante ne nii mooy taxawaayam moo tax boo demee ci aay yi nga xam ne ñoo la doon jàngal koor aay yi nga xam ne ñoo la doon jàngal koor ca aay yooyee fa la borom bi dugalee li nga xamante ne mooy ñaan sirru ñaan ba muy jeexal aaya ya la wax ne la soññi jullit bi ci mu doon koo xam ne day ñaan boroomam wa ida saalaka ibaadi anni fa inni xarib ujibu daawata daaci ida dacaani falyastajibu li wal yuminu bi laallahum yarshudun borom bi subhaanahu wa taala ci biir aaya yooyu la wax ne bu la sama jaam ñi laajee anama man yàlla nee leen ku jege laa borom bi subhaanahu wa taala mësta sori waaye jamono ji ñu nekk ci weeru koor ci la ñu gën a jege ndax yaa ngi dëkkee di ko jaamu te yaa ngi yëg ne mi ngi ànd ak yow ba nga bàyyi lekk ak naan mu ne sa xeetu gémmiñ gi sax dafa neex ci man ba mel ni misk kon ça veut dire que mi ngi koy xeeñ jege na la ba sa xeetu gémmiñ mi ngi lay mi ngi koy xeeñ te nit nag ngir xeetu gémmiñam xeeñ la faaw nga jege ko borom bi nee sa xeetu gémmiñ gi sax xet gi muy génnee nga xamante ne maanaam euh, xet gu soppeeku la ndax li nga xëy suba lekkoo naanoo gémmiñ kooku day mën naa soof yàlla nee na moo ma dàqal parfum bi gën a neex kon jege na la mu ne kon maa ngi nii waaye nag damay wuyu ku ma woo su ma wooyee damay wuyu ku ma ñaan su ma ñaanee te ñaan dama waxoon ne daa bokk ci teggee ni kii ñaan muy ñaan ginnaaw bi mu defee ak jaamu yàlla ba noppi moo tax dog ba ngoon jot nga war a yëkkati ma dogoo ko war a ñaan waaye waaye te waaye teyoo ko maanaam taloo ko ndax xëy na am na série boo xam ne jeexagut ma ne seetaan série araam naak araamut waaye am na série boo xam ne daa jeexagut moom waaye doog jot na sa bët yi ci la ne jàkk nga di ko xool waaye ŋàbbu tàndarma bi bëgg a lekk nga xam ne yépp nga boole lu ñu waxtaan waxtaan waxtaan lu coow li xumbu xumbu bañ ne dog jot na bismillah dañoo war ne tekk nag léegi dañoo war ne tekk nga yëg ci sa xool ne am na jaamu yàlla goo yendoo woon gu tudd koor yaa ngi toll ci di ko dog yaa ngi toll ci di di di ko jébbale bu doon liggéey la booy liggéey yaa ngi àgg ci war koo jeexal ci bis bi teg ko ci loxol malaayika mi wala teg ko ci loxol borom bi subxanahu wa taala foofu soxla na teewlu di foofu foofu soxlawut nit ki di ko surxu surxoo ndax bu boobaa day yàqu ah, foofu dafa soxla teewlu ko dafa soxla teewlu ko ne tekk waaw moo tax boo demee ci ñi mën a woor bu dog di jot buñ téyee seen tàndarma dañuy ñaan door koo lekk wala buñ ko lekkee buñ lekkee benn bala ñoo lekkaat beneen dañuy ñaan lekkaat beneen bu dee ñett lañu dogoo. wala juróom lañuy ñuy dogoo ñoo xam waaye dañuy fonk li nga xam ne mooy ñaan ndax ñaan daa bokk ci koor gi moo tax fal yastajibu lii wal yuminu bii moo tax rik waaye ñi nga xamante ne ñooy woor nañ bàyyi xel li nga xam ne mooy ñaan di ñaan di ñaan ay njariñ waaye di ñaan mucc ci ay lor di ñaan ay njariñ di ñaan mucc ci ay lor waaye nag doon ñoo xamante ne ñuy toroxlu ci kanam borom bi subhaanahu wa taala lañ jamono ji ñu ñaan ndax ñun ñëpp a yittewoo borom bi te borom bi moom doylu na walif ñun doylu na walif ñun waaye teewul nag mu toggook ñun ku def njekk jëme ci moom mu fay la njekk waaye boo ko deful woon njekk la du ñàkk gaa def njekk njekkadi ga du ko wàññi dara waaye ku def njekk rek mu fay la njekk kon góor góorlook def yitte googu ci jëf njekk daa bokk ci nga xam ni ñun dañ ko yittewoo waaye ñun ñoo yittewoo pay ga ne moom jëf ja yokku ko dara ca nguuram ga ñaan am na solo lool waaye rawatina ci weeru koor ndax ñaan topp yàlla la ñaan topp ndigalul borom bi la waaw ñaan jëfe ndigalul borom bi la wa qaala rabbukum ad'uuni astajib lakum borom bi moo wax ne moo leen wax seen borom nee na ñaan leen ma woo leen ma ma wuyu leen waaw ad'uuni astajib lakum loolu euh, ndigalul borom bi la subhaanahu wa taala waaw ka wax ne julli leen wax ne woor leen wax ne aj leen wax ne wax ne moo wax ne ñaan leen ma ñaan leen ma woo leen ma woo leen ma yonent bi sallallahu alayhi ne ñaan ci boppam mooy ak jaamu yàlla adduaahu huwa ñaan ci boppam mooy mooy ak jaamu yàlla wala ñaan ak jaamu yàlla la waaye al ibada mooy ak jaamu yàlla ndax lii fak laam gi waaw ñaan ci boppam mooy ak jaamu yàlla kon ñu gën a bari suñuy ñaan moo xam ci waxtu yu dog la moo xam ci waxtu xëdd la moo xam ci ginnaaw julli yi la moo xam ginnaaw bi njàngee alxuraan la ndax yiwu bari wi nga xam ne moom la ci borom bi subhaanahu wa taala dige yàlla nañu dajeeg moom bu ñu yàlla mayee ñu dund ba suba yàlla nañu yàlla may ñu dund ba suba te weesu koog jàmm daañu ñëwaat ci tomb boobu nga xamante ne moo jëm ci wàllu ñaan ak li nga xam ne moo ci aju ñu ñaanal leen kenn kendalug jàmm ñaanal leen ajjuma ju barkeel ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu dimbali ñu bañ man cee am tiyaa bay joxe suñu alal dimbali ñu bañ man cee am tiyaa bay ñaan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 ci seen jotaay bii di almisbaax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu